information monsieur le maire bu euh, goxub Kumbam Lamara c'est monsieur le maire bu Géejawaay naka yow. yow gaa ngi nii rek la maire. liggéey tey. sant yàlla bu wér. gox ba. waa gox ba fa gox fan. weekend bi euh, fan la woon. Euh, weekend bi. waa weekend bi mu ngi rek Sam Notaire ñu ngi doon âgé waaw. dem toog waxtaan. dem gis gaa yi. waaw weekend ba métti rek. Ah, waaw waaw weekend bi dis na. yi fi xew yi fi xew yëpp ci ci bi. waaw nuyu nañ tam monsieur le maire bu baax a baax daaw nañu. waaw monsieur le maire de la ville Rufisque ñu koy nuyu bu baax. koy bu baax mhm. waaw. en tout cas mm, ni ko waxee li si xew bari na. waaw métti ba pare métti. Mhm. waaw ñu ngi jaale ñëpp. Mhm. ñu ngi jaale soxna Zeynab. waaw DT RDV. waaw RDTV. Ah, waaw ndeysaan moom moom maa suñu ba taxoon ma gën koo. miin daal. jaale tamit euh, suñu. sama benn cousine député la APR. l'honorable député. voilà mhm. mhm, moom it. dafay jógee démb. ndeysaan ak euh, militante bu. Euh, Pastef bi. Pastef bi moom it. tey dix heures lañ koy yóbbu. ca village a Marloj. fa lañ koy denc hmm? foofu la ñu sax sama waajuru jigéen. Hmm? fa lañ ko fas yéene yóbbu tey sama cousine la. loolu na waat ki jur papa ma ki jur sama yaay jii day Sall Ndiaye ñoo bokk ndey ak sama cousine direct la moom nag APR la nekk. ah wallaahi ndeysaan ren ci campagne yu député yi rek dem naa fa nii weekend sax muy dem meeting. loolu moom keroog sama oto la yéeg. loolu moom dañ la koy jaal nag. waaw loolu moom dañ la koy jaal fu dëgg neex xaritu première dame bi la xaritu Mimi Touré la. Mhm. waaw ku yàgg président Macky Sall nag. depuis temps xeex baak yëpp xam nga ñoom moom suñ côté boobu moom dañoo xaw a dañoo fidèle lool. Mhm. buñ jàppee duñ ba. mu bu xësee ba téye téye nañ. yàlla baax na te loolu euh, xam nga ko sa xarit ki nga xam ne dafa jóge ci APR léegi. Papis waaw mais. nee da ko ban. mais Papis la yaroo nii tey. léegi defatul da ko bandum de. ah kii fu mu nekk nii. <laughs> cuubu na seeti na seen bopp de dañuy dem deuxième tour de. Hmm. ci kanam di nga xam dara. deuxième tour lu leer naa la wax. gàkko tatafu na leen de. def leen nii eh sa su na leen ni dara man dara <laughs> la de gis eh, gàkku nag nee naa dafa mel ni <laughs> mbokk yi dañ koo waajal comme la nga doon wax. et puis Papis est parce que temps dafa automatique. non Papis kay temps moom ni mu yenoo gàkku ëpp na. temps yi boo waxee rek mu dóor la gàkku. waaw ah. <laughs> est gàkku tam da koo war a recevoir. xam nga ku nekk si Macky Sall jóge fa. jóge fa tamit kooku du caaxaan. c'est très c'est très rare nga gis jamono bii ku jóge fee ñëw fii. trop trop de. Hmm? waxuma la très ku bàyyi ku bàyyi nguur ni mu neexee. Ah. ñëw jàpp sa lee opposition ah, ni mu ah, méttee ah, ak opposition ni mu méttee nag président Gakou bien bon nag nga dalal ko baax na na dalal Papis balaa muy dem baax na sinon rek xam nga lu ñu naan salaamaaleykum mu génne sa photo nii communication visuelle bi waaw di la ko force nii rek mu génne photo Macky ñoom maître Oumar yu mag yëpp kontaan ci moom mais ko kay comme te dalalaate dafa xew te dañuy tànn ñi ñu dalal walla ñuy foofu danañu bari <laughs> ñi ciw bu baadu <laughs> yàlla baax na. am na ñuy dem nag te ñuy dem du yóbbaale kenn. waaw am na ñu roñu di dem. waaye du yóbbaale kenn. wala ñoom kon du ñu roñ dara. dañuy ànd seen boobu rek dem. kese su doon problème marketing la rek. diw nga dëgg nag de. loolu leen loolu leen neex te boo demee fa dëgg neex yàlla. boo yóbbaalewul kenn. waaw amul sens. mu yow loolu ajul ngooñ. te man de maa ngi ci gàkkoog daaw dañu am. kese. monsieur le maire de la ville de yàlla baax na. yéen a kaay groupe des médias la ñu koy tàmbale. nga ne nga ne APR ñëwul. Malick ñëwul de ah ñëwagul mu ngi ci nàmpal mi day nàmpal ba léegi. sama tey. moom non comprendre nañ comprendre nañ. terminé yéen a kaay Moussa le ñëw ngeen ci responsable parti PASTEF bu Ousmane Sonko ca Kër Massar. Mhm. mais faat gu doy waar lañu ko faat. li gën a yéem nit ñi mooy meeting ba jeex ba pare ñu faat ko. bi meeting bi jeexee Ousmane Sonko ma nga woon baal yi ci weekend bi voix bi man mii la ko njaay Pastef doon def hmm. loolu maa la wax lii te lii tamit waaw lii tamit lii tam monsieur le maire après meeting bi ñu faat ko man xam naa ne man day métti ah lay xëy neexul de laa seeni kaay ñëw ak ci hmm. faat gi nga xam ni faat nañ ko responsable Ousmane Sonko ca Kër Massar agresseur bi day ñu ngi koy wax de ne da koo xoj ba nuppi yegg ci kaw te moo ne ndaw si moom jëkkër ji ci boppam ab sous-officier wu marine bi la ndaw si waaw waaye charretier bi jàpp nañ ko de ci lu wér maa la wax loolu de ci lu wér bi nga xam ne tamit faat nañ ko fële de mm-hmm. ah gendarmerie de ku nekk mi ngi koy déglu man day réew mi fi nekk nii. Mm, faatu bakken gi moom. Ah, source a ñëw ak ñun ci élément yi jëkk ci enquête bi Mariama Sagna. gis nga dawal ko tu sareet bi ak ñett ñoo xam ne bi mitin bi jeexee ñoom ñoo gunge ndaw si ah xel day na ca ñoom ñett bi xale yuuxoo ñett ñooñu ak dawal ko tu sareet bi ci lañ ne mes génn hmm. déggoo ma di ah, aw aw mbiri léegi mu leer ah dina leer ah, baax na jëlal hmm. opposition bi nag fi mu nekk nii dañoo nekk sula sot ci coowal Mariama Sagna coowal maître Madické Niang ak maître Abdoulaye Wade Ahmed Fall Braya yekk na lu mel ni xeme bàyyi Karim Wade Mamadou Diop Decroix moom mi ngi jéem a wut moom ay saafara solution ci Touba waaw waaw parce que Braya li mu jàpp mooy Abdoulaye Wade daal yéem na ko Abdoulaye Wade daal jaaxal na waa réew mi. fa dëgg neex yàlla. waaw si c'est pas mon fils daal c'est le cas. keneen. non bu doon dafa ne du neen keneen sax mu neex. <laughs> taal dëkk bi. non bu dee du Karim ñu taal dëkk bi. ñu booyal dëkk bi. élection du fi am. loolu yéeme na nag tamit de. Ah. le quotidien yéen a kaay ñëw ak ñun ci militante Pastef bi. Mhm. Mariam ginnaaw ab mitigu parti am. faatu gi monsieur le maire ci boppam moo doy waar. Mhm. Ousmane Sonko nag instant bi li mu bëgg mooy na lépp leer. ci lu wér. parce que soxna Mariama Sagna daal. non non non warul niil. ah mënul niil mënul niil. lii lii lii. mënul niil lii lii doy na waar. politique nii nii nii nii. mënul niil. Ousmane Sonko nee na mbir mi la te source a sa wana ko gis nga ndaw si. ni ñu caxat caxatee kër néegam bi moo doy waar. yàqate lépp saagam bi daa feesoon dell ak xaalis parce que dafa doon préparé wu pour dem Ziguinchor pour wàllum parrainage bi. noonu. le quotidien ba léegi Ahmed Fall bi ab bii Ablaye Wade teg Braya ba nga ko d' ci. d' ci bii ah mais <laughs> nee na Ablaye Wade dafa mel ni moom doom ji rek ko ko intéressé. Mm-hmm. les échos yéen kaa ñëw ak ci Mariama Sagna mii ñu rey. Mm-hmm. dégg nga en tout cas sërëm bi daal ak seen ngoosam bi ni meloon. jéggi na dayoo. waa xel da tey de. waaw ah, xel ma daal xam naa ne daal xel ma daal xam naa ne daal. Mhm. ah am sàcc wu yaakaar yaakaaram tas wala koo xam ne daa bëggoon yegg ci kaw mhm. jël nañ nag ay avocats yu bari. dégg nga. Mhm. ma Madické Niang nees def ba mu toog ci kaw groupe parlementaire liberté et démocratie bi. ca la médiateurs yi nekk muy Mamadou Diop Decroix Abdou Bara Dolly Mbacké Modou Bara Dolly Mbacké ak mu Moustapha Diop. ci lañ ne dem nañ gis xalif général ak murit yi Sëriñ Muntaxa yàlla na yàgg te wér. Mm-hmm. loolu gannaaw ko nag lañu waxtaan ak Abdoulaye Wade lu yàgg yàgg téléphone médiateurs yi nag tey jii la ñuy dajeeg ma dikki. kon baax na dégg loolu. ngir mu jël mbir teg ca suuf. voilà réew mi quotidien nag ñëw ak ñun ci weekend bi ak ni mu ñetti soxna yoo xam ne dañoo faatu te seenu demin bokkul militante Pastef bi ñu rey ah soxna Zeynab Fall mii nga xam ni feebar bu gàtt ko yóbbu. Mm-hmm. ak soxna département Fatick. weekend bi diis na. métti na diis na. métti na métti na. Mhm. exclusif kaa ñëw ak ñun ci Ousmane Sonko mi nga xam ne day wàññi na nag néew mu njëkk. doy na waar. ah. na waar. day day man day li ci yé li ci yéem nit ñi. neexul benn maître Bamba Cissé ci boppam mu ne lan moo tax Pastef rek. lu tax ñu teg gët Pastef. waaw waaw waaw mais looloo jaaxal nit ñi nag Moussa Lamine yow tamit la ay nit demoon ca kër yaayu Ousmane Sonko ca Ziguinchor. waaw Pastef la ñu rayaat encore seen militante bi ci Kër ma mhm. Mariama Sagna. pourquoi Pastef. waaw mais pourquoi Pastef ñu singli ko. Sud Quotidien moo tax it njiital Pastef bi Ousmane Sonko yëkk na lu mel ni xame président Macky Sall. Mhm. projet de loi bii ñuy wax nii budget deux mille dix neuf bii nee nañu ñaata quatre mille milliards moom la ñuy tiitaru wooyu ay waaye yow Ousmane Sonko ne xam nga lan moo doy waar nan lañuy tiitaroo yow ngay tiitaroo quatre mille milliards di ko ngand ngandloo te yow ndox sax mënoo ko jox nit ñi ndox muñ naan ndox mun nit ñi naan nii mun Macky Sall gouvernement bi mënuñu ko nos hôpitaux sont devenus des mouroirs mhm. dem dee la de ku dem hôpital de yegg de yegg dee la léegi hôpital yi léegi ay yegg dee la ngay tiitaroo naan ab année social xam na nee na nag àjjuma jiiti ñëw assemblée nationale dana tàng de. Sonko président Macky Sall lañ fay benn projet de loi bu ñu war a voté gis nga internet bi ni ko nit ñi amee nii à gogo. loolu bëgg mu dakk day dakk de. dañ ko bëgg a raxas non day dakk. <laughs> kuy bind bee ba nga profité bind la ngay bind de. kuy bind nee nañu Facebook ak WhatsApp moom réseau sociaux te Macky Sall dara taxul mu def loolu lu dul bëgg a def rek. élection yi forcing lay def. pour mën a jàll. Dakar Times ne ko lu mu forcing forcing Macky day dem deuxième tour. mënta ñàkk loolu yàlla def na ko. Mm-hmm. waaw ab sondage la mu génn ci août bi ak septembre bi ñu génn. Mm-hmm. Malick Gakou nag tey deuxième tour ba amee moom Macky ñoo jëm final. ñoo war a jàkkaarloo. face to face. waaye Papis Kadji loolu yàlla def na ko. Mm-hmm. rouge blanc yi waaw. leer laa la dogal gisoo ko nii. ay Papis Papis tamit mooy dem final moo moo Macky de loolu de bu yóbboo waa APR yi waajal ko. <laughs> kon moom it bu yóbboo mu waajal. yàlla lii la dogal. moom it maa ngi gàkku bu yóbboo ay. waajalal de waajalal de <laughs> fii kay ku fi fii kay kuñ fi ne yaay dem deuxième tour bu yóbboo nga waajal sa bopp. bu yóbboo nga waajal de. oh te gis nga temps yi passé liñ ko fi waxal. waaw gàkku gis nga. togal gi ñu ko fi togal ak ak oto yi ak seen pono yi di naaw ak lu ne. ma ne moo tax ma waajal convocation police ah. moo tax ma ne ko mu waajal bu soxlaa si génnee ne ne bu gën a dee président Macky Sall sondage bi bi ñu ko defee monsieur le maire. Macky mënul fexe ba am 40 pour cent. ay ñu def sondage yi ñu fi génne yëpp bon bii nii rek 34 pour cent la. téeméer boo jël fanweer ak ñeent la Macky am. téeméer boo jël Malick Gakou moo am fukk ak juróom-ñeent di 19. ñu ngi nii Idriss Seck moo jël troisième am 14 pour cent. moo am 14 Khalifa Sall Sonko 9 ñi des ñoo séddoo 12 yi. 10 des maa la wax lii. kon baax na. eh ma ni sondage bi nee na Macky day dem deuxième tour. mënta ñàkk moog Malick Gakou ñooy dem deuxième tour. dégg nga ñu jël le soleil yéene kaay ñëw ak ñun ci Moustapha Cissé Lo. meeting am bi mu doon amal Marius Ndiaye. Mhm. fees na nag gis naa yi. Ah. Moustapha Cissé Lo la moom bi yoon moom non Moustapha Cissé Lo la Cissé Lo moom Cissé Lo la Cissé Lo daal ku mën daal defal ni moom ku ñëwul de boo ko rombee ko ci mbedd mi tonton de fii la dem Alsaan Jigo mënul fees Moustapha Cissé Lo de feesal na stade bi <laughs> ba mu leen ba mu leen ah. testé nag sa pikin eh, eh, eh, ah Cissé ngi nii eh Cissé Lo ngi nii yow mi ngi nii mi ngi nii mi ngi nii Cissé Lo ay ku ñëwul <laughs> waaye yow mu ngi Cissé Lo mi feesal na stade bi waa Cissé Lo mi fan la jëlee nit ñi xool ko moo tax APR kenn du ko ci yeb trade xanaa xamoo politique nag représentativité la. kenn du ko ceeb. boo yoree mbooloo ñëpp lay respecté. kenn du ko ceeb. horizon 2020 moom la woote. buñ joon a ngi ne. Mhm. ah moom moom moom président affaire yi. buñ joon nee réew mi ci boppam la Macky Sall yëngal. Hmm. Macky Sall a mis le pays en mouvement. dégg nga ma de fépp fi mu ne nii fépp a ngi fépp a ngi dox ci kaw gàttal. fépp a ngi dox daal. oui fépp moo ji. oui fépp moo ji. dégg hmm. organisation Jeux olympiques jeunesse. Hmm. yu deux mille vingt deux yi monsieur le maire. Sénégal nag ñoo ngi ko doon màggal ci Argentine. war ni moo dalal kon président Macky Sall. yàlla libération yéen i kaay ñëw ak ñun ci projet de loi de finance année deux mille dix neuf Macky nee ñu def na ab jéego wu rëy rëy rëy rëy. direct info ñëw ak ñun ci wàllu parrainage. onze mille parrain ci benn week-end la Cheikh Kanté am. onze mille waaw. dégg nga l' ñëw ak ñun ci Alpha Condé président Guinée. wax na de wax na lu bëree bare bari ci journal bi. kon baax na Alpha Condé wax na de. Mm-hmm. waxaat na fii de. ak Ibou Soumaré mi ñu ko fi doon jiindee. nee na moom xamu ko sax. xamu ko. xamul ak Ibou Soumaré de. Mm-hmm. xamu ko de. kon wax na wax ji. xamul Khalifa Sall. wax na wax ji kon Karim Wade nag boo xaritoo premier ministre nag mooy loolu monsieur le maire. bu xaritoo. ah premier Karim lañ doon wax Guinée lay jaar ak yooyu xaritu ministre balaa ak ñoom seen. Ah, moom daa kon fu mu jaar léegi mu nekk nii. yoon bu mu jaar. daal nañ ñaan en tout cas war ngaa ñëw de bu fekkee da ngay ñëw. waaw ah, doy na war parce que say militants yi tëwoon nañu. waaw ah, waaw baax bi. de tey tey kay tës yi moom nañ dem Kër Massar rek. douanier bi moom ak ak. waa mhm. ak ndaw si. Mhm. il faut que Idrissa Diémé def ci dara quoi. foofu ñu lijjanti ko. waaw. baax na en tout cas mi fu mu toll de ku yeboo di moytu rek. moytu rek. loolu di tës la. moom gàkku la waa tës la ku may jàkkaarloo loolu gàkku. borom paas. waaw borom paas léegi maa léegi moom gàkku daf ko bugg jox paas mu dem. voilà très bien. Ah. gàkku day jox paas Macky Macky dem. loolu la bëgg. xaw ma Macky day toog ci réew mi dem fa Fatick xaw ma day génn réew. en tout cas ak nu paas mën ko jox. bee ma waajal de. gàkku ci boppam moo war a jóg ci boppam. <laughs> dig dajeel la. bee mu waajal boppam de dig daje ba suba incha allah. deful du baax de. mu ngoog man ci kanam bi di kaa jukki leen xibaar yi faram fàcce ko moom jàppandi bienvenue chez vous. rafet laa